jërë ngeen jëf mbokk yi ñu siibat fii ci people 221 ginnaaw ba ñu leen nuyoo di leen siyaar baax a baax di jël suñu nuyoo di ko jaale ñi nga xamante ni euh, yàlla dafa jël seen bakkan di ñaan yàlla suñu borom yërëm leen te jéggal leen te xaar leen àjjana di ñaanal ñi nga xam ne dañu tëdd ci loolu hôpitaux yi di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa day tey nag ñoo am mbégte ci dalal koo xam ne kenn doodu ko présenté ci réew ci bitim réew rawatina ci art bi mu nekk muy théâtre mu di Alioune Mbaye tey moom la ñu fas yéene siqal waxtaan dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay sibul fii ci People 221. waaw ange billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni deroo lakke Mich Baax Fall mhm. ñi ngi sant bu baax People 221 guy gi sama soppe bi ah mhm, ndeysaan maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay bu baax jërëjëf jërëjëf di nuyu ñi nga àndal ñëpp mhm. xalifa yi nekk ci réew mi yëpp. Mhm. di joxe rek benn message di wax sama mbokk artistes yi nan ma ci soutenir mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni day sargal Cheikh Mouhamadul taxa le 11 novembre bii di ñëw Touba. Mm-hmm. guy gi yow waaw incha allah incha allah incha allah. incha allah mu ngi noonu kon na ko ñëpp waajal incha allah xam naa bu gënee jege si rek dinañ ñëw. def ci ay service commercial parce que liggéeyal Serigne Touba moom. waaw kenn duñ jaxaar daal. Euh, mais Alioune Mbaye gars yi namoon nañ la Alioune Mbaye ci lan la nekk Alioune Mbaye dañ ko doon gis. Mm-hmm. ci lu bari mu doon feeñ ci affaire comédie yi. Mm-hmm. mais léegi Alioune Mbaye dafa mel dafa xaw a ci lan nga nekk. pourtant ñoo ngi ci am na ay série mais vidéo lay daw xam nga léegi affaire yi business la. d' accord am na ñaar benn bi jaral na ma. Mhm. boo xam ni Leuz moo ko def. Mhm. mi ngi daw vidéo. Mhm. ku fa dem di ko seetaan am na tasal ma takk la boo xam ni. Euh, yees Dakar moo ko def. ci bi boobu it ngi vidéo. voilà mais ñu ngi ci bagage yi. mais tey comme li ngeen tàmmaloon Sénégalais yi di dindi seen stress au fur et à ngeen jékki-jékki rek ni affaire léegi business la jël affaire yóbbu ko fële est ce que xam ne yéen ngi daan dindi seen stress ñu leen daan suivre euh, est ce ngi sóoraale ñooñu aussi. waaw xam nga tey bu fekkente ni da nga ne Alioune dafay dindi sa stress mais bu ko bàyyeeg stress. Mhm. jëlal ñaar fukki dërëm rek. mën nga mhm. dugg vidéo seetaan vingt quatre heures. Mhm. bu ko defee ñaar fukk yooyu. bu dajee dina nu mënal dara tamit. dina taxit kenn du nu xas. dina taxit du nu ñaan kenn. parce que tam yenn saa yi sénégalais xasee la dara. te fekk responsabilité principal bi moom la. parce mënoo ñu bëgg te yow mënoo ci ñun benn loo xamante ni dina tax. ñun ñu gën a nekk pour gën a mën a préparer li lay bégal. moo tax fekk ñu wido seetaan jaral na ma ak tasal ma takk la wax dëgg yàlla ci cent jar na ko nag. gis ni Aline Mbaye bokk na ci artistes yi nga xam ne mën naan dañu complet mm-hmm. tey a ah, bokk na ci artistes yi nga xamante ni boo leen jox dinañ ko joué mm-hmm. tey mën nañu cité benn benn benn yaa ngi ci doon joué mën naa ni dina ma neex ak yeneen ak yeneen mm-hmm. mais dañu gis ni souvent da ngay gën a ci rôle marabu yi lan moo tax waa xam nga tey artiste pat la rek léegi nag producteur bi lay soxla moo naan dama bëgg beñe nga dem liggéey personnage bi nga dindi pat bi def ko beñe mhm. kii ni la painolé laa bëgg nga dindi pat bi def ko painolé mhm. yenn saa yi mhm. mooy kiy créer bu fekkee créateur nga rek artiste nga moo tax artiste warul yem ci benn personnage dafa war di liggéey ay personnage di teg parce que loolu mooy waral ngay dund parce que bul fàttali carrière lay liggéey te carrière ay coono ak ay personnage dajale. Mhm. ba nga mën a yegg ñu mën la limal sa carrière. Mhm. mais feeg yeggoo kenn mënula la limal sa carrière mais ñu ngi ci tey bii ma lay wax ni la tasal ma takk la. beneen personnage laa ci joué Mbaye mm-hmm. Taximan mm-hmm. bi ma lay wax ni la mi ngi widoo tamit euh, ci lëz bi jaral na ma mm-hmm. beneen personnage laa ci joué tudd ci dara maa ko nekk benn cuisinière bu nekk ci biir kër gi kon yaa am na personnage yu bari yoo xamante ni macha allah mi ngi ci ñun yenn saa yi ngay am sens nag mën ko proposer foofu noonu ci personnage boobu laay duggee mu mel ni souvent euh, euh, xamuñu ci artistes yi la xamuñu ci maison production yi souvent nga gis benn bi génn ñaari fan yi nii dafa am jafe-jafe parce dañ ko proposé woon que ni yow rôle bi boo ñëwee da ngay xëm ci bi mu joué mu xëm mais après dañ ko pesé rôle bi nekkul woon xëm mais dee la ndax nga jàngatee loolu. waaw loolu moom euh, mënuma ci bari jàngat ndax dëgg yàlla fekkiwu ma ko seetaan naa ko mama Yacine maa ngi koy nuyu xam naa ko. Mm-hmm, mm-hmm. ñooñu ay professionnel lan maanaam mm-hmm. ñoom moo tax kuy wax théâtre da nga ko xamul ñooñu dañoo jàng ba am bac soog a maanaam école des arts dem jàngi théâtre ñu ngi koy mm-hmm. nuyu di ko jox respect mais mënoo sori ci loo xam ni xamoo ko fekkewoo ko mm-hmm. mais bu nu mënee retrouver waat comme ni mu ko waxee moom ñu woo ko ñu jouer parce que diggante lu mu jege-jege doog def rek moo ko gën mm-hmm. mais du ñàkk am nga ci am nga ci tey conseil boo xam ne di nga ko jox en tant sa sœur non kooku mën ma ko jox conseil ndax nit du def du jox conseil koo xam tey buñ toppoon ci palmarès moom sama kilifa la ci bagage yi. Mhm. beneen bi mooy ki yor scénario moom moo xam xam tey nit mën maanaam bari xam-xam mënul tax nga fi nga firi géntu jàmbur. Mhm. tey mënuma wax tey. lan parce que dee ci théâtre la bokk xam ci théâtre la bokk tukki ci théâtre la bokk am na mhm. ñoo xam ne dañ koy def comme arme sanction maanaam ñu rey la pour bëgg la ci génne mais boo xamul critères yi ak lan la sekk ak mboroo di mënoo ci xuus d' accord kon kon genre da mën nga jàpp ne aussi tamit dañ ko ci bëgg a génnee moo tax ñu rey ko. non man jàpp ma dara <laughs> guy gi bu ma dugal man xaw ma yan critère la. bi ñuy mhm. signé contrat fekkewu ma du ma ménagère am. Mhm. sama mama la sama sama sama sama professeur la. Mhm. mboroodi. pot sama xarit la. Mm-hmm. maas xamante woon lu yàgg avant Mborodi. Mm-hmm. kon mënuma ci wax lu dul rek diggante lu mu jege jege doog ko gën bu fekkee mm-hmm. am nañ possibilité mayaat ko beneen sens. nan ko may beneen sens parce que ni mu waxee da xam ne bëgg na joué waat. mais quant lii wala lii mënuma ci xuus parce que xaw ma ko. d' ma ñëw ci coow nga xamante fan yi daanaka fan yi moom aar moom man comprendre lan mooy problème bi tey boo jugee théâtre neex ak ba bi nga seetaanee première sortie Veba en tant que artiste euh, naka nga ko jàngatee. waa man xam nga ku nekk ak sa sa méthode. ku mhm. nekk ak sa vie ni nga koy doxee. Mhm. man li ma jàng. Mhm. mooy man je suis médiateur. maanaam man du fekk xal bi may dolli kër yi. damay fexe nu mu fayee. ñun ñëpp ay frères la. ñun ñëpp ñoo bokk li nu bokk. Vieba xam naa ko par aar. xam naa ko saaneex xam naa ko par aar xëy na sax saaneex li ma joññanteek moom joññantewu ko ak Vieux Ba mm-hmm. mais li ma ci mën a wax rek mooy nekkuma kuy far ci kii wala may far ci kee mm-hmm. mais nanu waxtaan mm-hmm. ñu xam ni li ma waxoon fee diggante lu mu jege-jege doog defar ko gën parce que aar bi laaj na leneen lu dul génn di xiiroo ak di ŋaayoo nanu nanu bokk ndey bokk baay fexe mu jógee A dem B parce que il est temps que ni promoteur bi di yokkoo ci aar te bi mu ciy dugg la ci dugg ñu xool artiste bi mu union fait la force. Mm-hmm. ñu bañ a topp si lii ca laa. Mm-hmm. maanaam nanu xool naka lañ waxtaanee parce que mm-hmm. ñoo bokk soleil levant. boo déggee ni Sanex développé nga xam ne yàgg nan yàlla na leen yàlla muccal ci seytaan ñu toog waxtaan. ñi ci mën a jàpp te mën ci wax ñu dégg ko ñu dem jàpp ci ñu toog waxtaan moo gën parce que diggante lu mu jege jege toog defara ko gën. mais est ce que tey comme li nga wax ñoom ñaar ni ñu yàggee ak temps bi nga xam ne def nañ ko VEBA est ce yoon la yow sa position xam nga tey yoon la wala du yoon nee naa la du man maa koy wax. Hmm, mais sa position gii bu ma dugal. non non dañuy waxtaan rek. non mais man sama xam nga tey. Hmm. dama lay wax ni la danoo nekk ci benn monde boo xam ni monde monde monde internet la. Hmm. mais li am solo rek mooy. mbir moom bu amee solution moo ci topp. vie ba génn na wax. mënuma xam lan moo ko génne. mënuma xam ndax moom instant bi buñ ko dékkaatoon micro dina wax li mu waxoon. parce que tamit nit ñi il faut ñu di leen pardonner. léegi nag li am solo mooy rattrapé. mooy mm-hmm. solution. Mm-hmm. solution bi mooy nanu fexe. parce que mm-hmm. tey am na fa ay sage am na fa ay nit yu fa nekk nan fexe ba. ñu ñu dogee fi wax ji defaraat ko ñu ñu ñu avancé. Mhm. parce que tamit foofu lan toll quoi mhm. famille la. Mhm. voilà famille la. fan yële passé am na coow fi amoon ba ma fa mel ni sax coow dafa commencé judduwaat muy ki nga xamante ni Pape Djibril na attaqué ñi nga xam ne mooy artistes yi. lam doon wax mu mel ni dafa amaat coow yooyu mooy commencé di judduwaat ndànk ndànk. <laughs> waaw loolu moom euh, ba mu ameet la ma ca wax wax naa ko ci en tant que nit kuy sàmm métier. beneen bi sénégalais yi dañuy jaawale. tey Pape Djibril mën na wax dara ma tontu ko mais du nekk sama noon mhm. damay damay défendre sama métier mhm. leeral ci ñi nga ki seetaan video bi jàpp ne li mu wax am na. Mhm. beneen bi wax ju close na parce que génn na ni bu fekkee am na ñu mën a xari maa ngi jégalu. nit nag bu xasee ba ni maa ngi jégalu. te defoo ko noonu danga doon leeral. mais wax ji dañ koy teg ci ginnaaw Pape Djibril ay frère man tey bu ma amoon benn dayo bi. Pape Djibril dañ koy utal ñun cadeau artistes yi dem yóbbul ko ko. Mhm. parce il faut ñuy maye il faut ñuy defante lu baax. Mhm. il faut ñuy waxante lu baax. Mhm. Pape Djibril génn na wax du sunu noonu wax naa ko ci sama interview man leen li nu naqari ci wax ji mooy soppe moo ko waxoon. génn na seen TV wax ba ni maa ngi jégalu jégal nañ ko. wax jooju nañ ko teg ci ginnaaw. tey lañ ko gën a bëgg tey lañ ko gën a fonk. parce que nous sommes des frères. lépp Sénégal la. fàtte naa loolu man ba mu waxee loolu. mais wax ba pare coow yi du non mais ah, coow artiste yi coow juddu yow dèjà yaa ngi métti sax Amar Fap. <laughs> mais coow art mais coow yi coow yaa ngi judduwaat parce que. bërki démb Lamine Ndiaye tey ba suba saa neex lii lépp yéen la nag. non du ñun parce que ñoom ñooy wax. tey Marodi tey Marodi. dafa am benn xit sax bu ma génnee ci site internet yi mooy maanaam bu la songee. Mhm. xoolal yow li ngay vivre. Mhm. ndax ñoom ay vie lay xool. <laughs> xooluñu yow li ngay vivre. mais xam ñu li ñu wax ni dafa am say vie dañ ciy sànq li ngay vivre. mais xam nga li ñuy wax ni nekkul luñ nekkul luñ créé parce que tey. xëyee ñu ni waa waa tey yow par exemple comme fem bi génn muy sa sœur ñu xëy génn mu xëy génn wax. tey ki nga xam ne daf koy seetaan danaan ah mais kii génn wax non kon théâtre bi am na problème. ñu jógee fa saaneex génn wax kon dafa mel ni dafa am réeroo boo xam ne day seen biir. parce que nit ñi dañoo sukkandiku ci xam nga actualité bu la bu la ganesee hmm. day génnewaale yeneen mbóot hmm. nit ñi dañoo sukkandiku ci li Pape Djibril wax ñuy poser question artistes yi hmm. artistes yi di tontuwaale li nekkoon ci ñoom c'est-à-dire bu dee wàllum euh, Lamine Ndiaye close na malentendu moo am ñoom fay nañ ko xaalisam jeex na kële dafa ni mboroo dafa jàpp ni dafa xam ñoom ndeke rey na ko malentendu la ak mborodi loolu du problème moo mhm. mborodi ñoom rek ko mën a lijjanti mhm. man mënuma la ci wax ba wax la ci lu ci biir parce que nekkuma mborodi d'accord mais boo xoolee mu ngi wax ni famille bi mu ko seetaan bi mu ko seetaan ak waa këram daf ko xaw a metti waaw parce que malentendu day indi cause loolu mooy cause u malentendu bi léegi nag loolu wax na ko ci interview boo xoolee ni mu ko waxee méchant parce que mi ngi ree ñoom nañ ko rattrapé mhm. mais léegi loolu moom moo la ci mën a leeral ak Mborodi da ngay fexe ñoom ñu toog Mborodi toog mhm. mais loolu du problème aar bi amul problème mhm. mais genre trahison yooyu mos nga ko dund ci waaye loolu day trahir non trahison la kay parce que tey parce que tey kaa ma joué loolu nga xam ma dem ci scénario bi da ngay xam. est-ce que ci biir xam bi mu dee. <laughs> mais mais mais mais ñu gis ni Pape Djibril Fall li mu wax dafa mel ni dafa xaw a am parce que boo xoolee aar bi ñi nga xam ni dañ ci sonn. waaw bu mel ni aar dafa demee boor quoi. dama lay wax leen ñoom liñ lekk ci aar bi sax ñu lekkuñu ko ba pare il faut nit ñi il faut nit ñi ñu arrêté bu ñu gisee artiste bi di xool xam nga xam nga métier. <laughs> métier moo gis. Mhm. dafa am loo xam wërsëg la wërsëg bokkut ak métier. Mhm. moo tax wolof mu ne nit dinañ ko dóor ci lu tax liggéey woo mais li tax amoo kenn du ci dóor kenn. Mhm. te yéen site internet am na ñoo xam bu ñuy ñëw ci def ci interview dañuy gaare 4x4. am ñoo xam deux am ñoo xam day jël taxi. c'est-à-dire dafa am loo xam ni bokkut ak am métier bi. yàlla mën na bind sa wërsëg ci métier mi nga am ko. dugg ci léegi am lu ne loolu wërsëg la. métier mi li ci am solo mooy mission la. un missionnaire nag. lii tax mu kontaan mooy mu accomplir mission. Hmm. mooy Alioune Mbaye li muy def mu fexe ba but bi tax mu di ko def ak ñim koy defal ñu mu ñu satisfaire ci. Hmm, hmm. leneen li nag leneen la. leneen la mais nanu bàyyi jël artiste bi dafa war a dawal oto farfos dafa war a nekk xam nga nit. bu fekkee ni yaa ngi xëy di dund yàlla wërsëgale yére bu set. nga lekk ba suur am wér ñàkkoo dara. ñàkkoo dara. ñàkkoo dara. man damay gaare sama oto di dugg super. Mm-hmm. di dugg tata. Mm-hmm. parce que am na recette yoo xamante ne artiste mënut a tëj boppam. damay mm-hmm. gaare di dox. man parcelle Pikine bañ naa ko fa dan ma xamee dama koy dox. parce que man dama bëgg dox. léegi nag dox yooyu ngay def ak recette yooyu ngay def. nit da la ciy gis benn yoon rek xoolee la bët boo xam ne pour ñoom nit bu génnee télé rek dafa war a nekk un mais du noonu. ba tey ba tey damay damay jeexalee ji waxu Pape Djibril mu mel ni euh, artiste dañ ko xamoon ci yeete. artistes dañ ko xamewoon ci joxe bon exemple tey série yi nga gis daanaka boo xoolee li ci gën a vulgaire la ñu wane maa ngi doon seetaan benn série man sax dama yaakaar loolu clip la ndaw si mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi lëmbal takk ay fer waa jaa ngi toog est-ce que image boobu noonu Pape Djibril Fall taxaw doon waxe ak image boobu noonu du xaw comparé. waa xam nga Pape Djibril Fall wax ji nee naa la close nañ ko mais mën naa la tontu ci en Euh, image bu génn wala nit xam nga nit ñi il faut ñu xàmmee leen. Mhm. producteur bi am na yoo xam ne producteurs yi sax lañ ko war a laaj parce que mhm. tey ki bind produire yëfam. Mhm. nit ku nekk ni nga mel ngay jëfee. mais nag am na benn taraanga bu fi amoon sénégalais yi war nañ ko bàyyi xel. mooy ñun dañ doon jooy soli no série novelas yi. loolu ñun yàgg nañ ko suñuy plateau. ñu may ñu chance ñu indi suñuy série il faut mu dëppoog suñuy réalité. dafa am loo xam cinéma lañ koy woowee. dafay financement bi dafay pare tey nit mën na tourner cinéma am ci ay millions te yow sa doo ko seetaan. Mhm. cinéma moom moom yenn yi. Mhm. mais télé bi moom lu ñu ciy wane. waxoon naa ko ci benn émission bu ñu may invité man leen ku def sa série ba pare bëgg a xam baax na wala baaxul. Mhm. wóol sa sëriñ woo sa yaay. woo sa papa ngeen toog visionné ko. bu la déranger wul rek li ngay li ngay génne baax na. tey kenn waxul ni. nit ñi danoo war di def non non il faut arrêter Sénégal ñun danoo am culture. danoo am aada danoo ay réalité lu bon bokk fi. Mhm. man sama compagnie bu bees bi ma taxawal. tuddee ko mhm. mag aar. Mhm. slogan bi li ma ci bind mooy aar ku bon bokk ci. lu bon bokkul ci aar. un artiste. xam nga tey tey nit dafay nekk jullit d'abord. wala nga nekk chrétien d'abord. am na ay ay réalité yoo am. aar métier la. tekkiwul ko da nga dugg ci aar képp ku aar yàq xoolaata sa bopp. parce que affaire bi waa jii la caméra bii la. Mhm. te wala xadd karam naa ban caméra kenn mësu ko wax. ban mhm. aadama lan wax. Mhm. léegi nag bu fekkee da nga ñu yar la ci ay réalité nga ñëw caméra bi yàq la a yàqu. da ngaa rafetub lay rek waaye yàqoo ngi woon sa xol. mais tey kuy bind film war nga ko bind ci sunu réalité. am na yoo xam ni jarul di def naan non cinéma la. rafetul rafetul. kenn am na yoo xam kenn du ko wane. kenn du ko wane. Mhm. parce que rafetul bu ko wane. Mhm. am na lu ñu fi mën a def mu rafet mën nga wax lu rafet tey nii mën nga bëgg a jàngale ni kii dafay def prostituée wala dafay def nangam mën nga ko tudd ci baat bi. Mhm. ba jàngal ko mu changé te doo ko wane. parce que tàppit amul njariñ loolu loolu Pape Djibril wax ko Matar wax ko wala ba wax ko ñun ñoo ko gën a xam te du yoon. te chaque jour artistes yi jooy ko. mais artiste bi produireul. man tey bu ma doon produire ci sama ci sama nin ma yaree laay mais am na ñu fi nekk tey financé wun na pour ñu produire. Mhm. c'est ça la réalité. Mhm. léegi nag ki def production am dem jóbbu ko ci tele télé ba waroon ko rejeté mu teg ko wala site internet ba teg ko mais kooku yoonu Alioune Mbaye wala yoonu ma dem ba newu ci. Mhm. bu ma ca waxee damay sonn rek wala ma waane mais mënu ma ci dara. c'est ça. te ni leen naqaree noonu la naqaree. d'accord. d'accord mu mel ni ñu ngi may signaler li ñu mayoon ci ay waxtu léegi mu jeex. wala ah. sax jeex na. gàtt na de. <laughs> non. bu ngeen ñëw da ngeen indil waxtu yu bari ngeen indil ma waxtu yu ndaw yi. non li dul ci li du ci li dul ci nag bi xajul ci cin bi. xaj na ci def ci xajandoowul. <laughs> vraiment ñu amoon mbégte ci dalal ko fii ci sunu kër tey sa moo de la ci émission bi. waa sant leen bu baax nag wax dëgg yàlla. yow hmm. da ngay yàgg nekk sama soppe. ndeysaan yàlla xam ne ni dama daan <laughs> kili kili de am na boo def ak ndey di la seetaan. mais damay ree ba sonn. parce que nga àdduna. Hmm. ñun fii li ñu xam mooy jàmm. Hmm. ñàkk day joxe seere. dëgg la dëgg la oto ni muy demee ñu vidé ko. Mhm. ree noonu la mel ci nit. Mhm. nit dafa war di ree am jàmm. Mhm, voilà parce que ñoo bokk ndey bokk baay. di sant bu baax. kanji production ku baax mi ngi noonu hmm. ku mën a def lu baax hmm. yàlla na ko yàlla dooleel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam maanaam képp ku jël sax maanaam loolu muy liggéey entrepreneur bi nga hmm. defar loo ko kër wala nga jox ko marché sànni nga benn xeer jam ñaari <laughs> parce que day def lu baax nga nit kuy def lu baax alma yaa du service commercial <laughs> parce que yéen leen <laughs> yéen da ngeen ah da ngeen yem rek nag xam nga Sénégal fi mu ne nii bu ma waxoon ci ka lu safaanoo da may gën a puus. dëgg la te yu baax yi dañ ko war di wax. dëgg la vas-y may nañ la loolu demal. moom dafa baax. kanji li tax ma ni la boo ko liggéeyloo. Mhm. da ngay am lu baax parce que kuy def lu baax. xaalis kuy mhm. def mhm. da ngay am immeuble am tuyaaba. te boo tëdd boo demee barsàq rek xam ne tuyaaba loo ci amoon doyul. di sant alaaji euh, kii euh, di sant Pape Gorgui Ndong di sant Serigne Medoune Seye borom tawféex. borom Thiès jëlee sama loxo fii indi ko fii. moo ma jox oto bu baax. waaw bàyyu ndey rama ak Seexuna maa ngi koy mhm. sant bu baax magi Seexuna ak Mam Bousso mhm. yàlla na yàlla guddal fanam mhm. parce que kooku xam nga tey mën nga gis dara ci aar mu metti bu ko wax fexe koo jëf am na ñu fi ne yor ay milliards artiste bi sonn jëf ko Mm-hmm. dimbalil artiste bi parce que mm-hmm. artiste bi bitam mooy bégloo la mais bitam di uti milliard mm-hmm. mi ngi noonu di sant tamit sunu maire de la ville Timbo di ku baax di ku yaatu di liggéey inauguré mais li plateau la wala mais ah fi mu ne làmb yi ba ngeen làmbee mu nooy lanu làmb mbër yi dofu leen di di sant bu baax <laughs> euh, Pape Sagnang Mbaye sama nijaay ministre de la pêche di ku baax di sant bu baax Thierno Ndomba borom Pikine ci laa bokk ma ne ko dangaa gore waaye Pikine di gërëm autorité yi di gërëm sama xarit ministre bu bees bi Yankoba Diatara mm-hmm. yàlla na la yàlla jox coupe du monde nga indi ko fi te rafet naa ci njort allahumma leen ko denc coupe du monde dina fi ñëw insha allah di ko sant baax ku baax la mm-hmm. di sant di gërëm bu baax Euh, fii borom kër gi CNM H&M, Salange New Media. ndeysaan Moussa nit ku baax mhm. te mhm. di sant bu baax xam nga ñooñu dañuy sponsor yi. ah man kay léegi dama comprendre sax ah, ko defee mu neex ñun duñ ko def mbër day am 100 millions wër di santaat ñun 100 ko ci amoon da ngay dem ca di sant di gërëm bu baax te bu làmb euh, kii jubsee ngeen ñoom wax leen kii daal. Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang. xanaa yow Boy Niang wax ndax yow Pikine nga dëkk. xanaa Boy Niang ngay wax ndax baatin laa lay wax bu nu yegsee ma wax la ko làmb jaam ñëw leen ma wax leen kuy daan dama am baatin bu bees bu ma war a wane exclusivité yéen a koy am bu la neexee bu bu la siis bi wax leen kiy daan site Papa Sow waaw leen kiy daan insha allah d'accord dina ñëw ah d'accord dina ñëw insha allah parce sama site la dinaa mm-hmm. fexe kii leen beneen bi di wax ni Sénégal nanu yeewu alaaji Macky Sall xam naa waa kër Sonko nan ma saagaate mais saaga leen ba doyal du tee man Macky laa dama am benn slogan bu bees bu ma génne mooy merci Macky xaar leen ko dina ñëw ñu génne lépp lu président def tegal ko askan wi bu ko defee ut ay tiset def ko ci mbir bindi merci Macky parce que ki ko def ki ko wax la bëgg. Mhm. borom noppi liggéey inauguré kenn du moom. Mhm. jàmbaar jooju. Mhm. waaw. Mhm. jërë ngeen jëf. d' accord bu yeboo nga engagé wu nag parce que. Euh, euh, du du du ma saaga saaga saaga ay gone yi ñoo mën saaga bu ñu dem rek wax naa dégg gars yi mais ñoom lu tax saaga <laughs> mais politique xam nga lu tax ñuy dem élection. Uh-huh. parce que kii dey far fii kii far fii. Uh-huh. ba pare politique. fi mu ne nii man mi uh-huh. xës a nekk ci Macky Macky soxlaatuma yow mi ci nekkul la soxla. dëgg la te ko kenn bañu ko. profil la boo xam dafa aaraat Sénégal mais ñoom. man ñoo tax ma bañ Sonko. man Sonko mhm. dama ko bëggoon ma ne bu Macky jugee Sonko laa faral. Mhm. mais dan maa saag ba ma bañ Sonko. Mhm, d' accord euh, yi ñu am contentement ci dalal ko mu doog nit ku disponible aussi tamit. nekk nit ku baax vraiment tëjuluñu benn portam. Ah, ñu koy sant bu baax baax di ko gërëm di leen jox yeneen di daje suñu yeneen émission fii ci People 221 di nuyu équipe technique équipe technique bi yëpp di leen jaajëfal jërë ngeen jëf.